imam Yacine Diagne foofu la ñu xamee góor gi fi jógee ëpp na cinquante ans gis nga kër gorom yooyu moo taxaloo ak zawiya maam Alaaji Malick bi nekk Lamine Gueye angle amat yi kër googu daanaka àddinaam yëpp fa la ko fa la fa la ko toogee tax na mu naan man ak samay soxna ak samay doom yépp ci yéen dañu bokk jamono bu nekk moo ko bi ci def mhm. mooy sama maam astukan mi nga xam ne mooy wëjëram bu jigéen mhm. ak sama maam Marème Diop Maxtaar mi jur Diop Diop Moussa Serigne Dakar mu jur ma mhm. génn àddina moo leen tàqale maam astukan yi jëkk génn àddina ma jox la firnde seen diggante suñu bàyyi Cheikh Tidiane Al Maktoum ba mu amee xat-xat ak Senghor ba ñu téye ko fii ci Dakar ñu ne am asukan xanaa doo dem ndakaaru seeti Cheikh mu ne ruus naa ajër ma dem jo mataan nekk Dakar mu fi jóge bi seeti Cheikh mm-hmm. te moo tax góor gi fi jóge naka jekka bàyyi laa koy wooyee mooy wooyee doom fu ma ma sa fekk bu ma lëngee ba ñuy waxtaan ba jóg ku nekk waa Ablaye Matar yi góor yéen a ngi wax di ree de mën a ko suñu wax bopp la ñuy wax di waxu bàyyi ak doom mm-hmm. bi ci des yàlla may na ko loo xam ne ñëpp a ko seede ci dal dal ci doxinam dal ci waxinam dal ci colinam loolu yëpp nag moom ci bopp moo ko daan tënk ne dignité kenn du koy jaay ci man magasin yi ñu ti koy utal boppam sàmmal ko boppam loolu waxtaane ko waxtaane na ko ba tàyyi ak sa waay yi njaga sàmm li lay won loolu mooy gis nga ñi mu meleek waa Tiwaawan mhm. meleekoo ak ñi mu bokkal ndey bàyyi baay meleeku ñi mu bokk ak ak ñi nga xam ne moo leen ilif mhm. ba gis nga barke Demba Njaay bi góor gi sëriñ Abdou Aziz Al Amin génne àddina mhm. ni mu yombale diggante boobu rattaxal ko ba ay wi ñëw ni ba ni mu fi jógee beneen bi ci def mooy boo ko masaan dégg ñu ko déglu li nga xam ne borom xikma la sagesse. Mhm. lu tax ndax dafa amoon culture. jële ko nag ci sëriñam muy sëriñ Cheikh. Mhm. ba yàlla may na ko suy wax ak yow wala muy wax ak mbooloo foog nga déglu ko ndax di ci séentu njariñ. Mhm. ci doxalu àddina ci sa digganteeg nit ñi sa digganteeg sa borom. li tax na waxtaanam daan neex day dëppook jamono. dëgg jóge na fi wante man maa ngi am yaakaar bu baax a baax. ne lépp loo xam ne lii lu mu doon noonu la ñi mu ko fay bàyyi dañ ko ko sàmmale. mooy rattaxal diggante yi diggante këru diine yi. ndax barke dem boo ñaari gis mu dem Touba ziyaara ji sëñ Mountakha Mbacké. ñu ngi koy ziyaar mu di ko ko jàll. barke dem boo rek dem na fa. Mhm. loolu yëpp nag. fii jamono toll ma dégg léegi sama mbokk mi Ahmed Khalifa Niass di ko wax. Mhm. nga xam ne ñu ngi ragal. Mhm. ñuy féewale tariix yi. Mhm. ñu ngi ragal ñuy féewale kilifa diine yi. ñu ngi ragal ñuy féewale sax di nit ñi ku mel noonu su fi jógee dañu ñaan yàlla ñu koy uute. ñu koy uutu am boobu taxawaay ndax réew mi nekk ci dal. am na solo. loolu daal euh, sëñ Assane. moo tax ci ci valeur yooyu nga taxaw sëñ Arabi Niass euh, wax na ci wax ju am solo sànq. Mm. Euh, ñu baax ñi fi bawoo. loolu lañ mm-hmm. leen defal ne ay seede ci nag loo loolu ci dañ koy def ci jamono yi ko Sénégal gën a soxla ndax ku ne xam nga ni loolu ne ay valeur mu ngi ruus rek. Mm. xam nga El Hadj Assane moo tax émission ma koy déglu. Mm. nga nit dañu foog ne Sénégal daaw la ko yàlla sos wala daawaati jéeg. mais mm-hmm. gis nga boo yónnee sa xel. ca lu jiituñu moom suñu bopp indépendance. naka jekk ñu nekk ci kër diine yi dañuy wax ci doxalin àddina dañuy wax ci politique. ndax di yedd ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk àddina bi ci wàllu zaayir. kon bu ñu toogee ba léegi ñu naan sëriñ si waruñu wax ci réew mi. sëriñ si dañ ci war a ndoppi. Hmm. fexe fexe ba sëriñ yi noppi ci. Mhm. moo tax senegal nekk ci li mu nekk. dëgg la ndax tey jii as Alaaji Assane. Mhm. soo wàññee téeméeri sénégalais wóor na la ne juróom-ñetti fukk yëpp am nañu wasila. Mhm. kon li nga xam ne mooy cëru ñi yor réew mi mooy jox ñi nga xam ne dañu yor ay wasila dañu dañu astafurlaa ñi nga xam ne dañu yor kër diine yi. ñu jox leen seen cër ba mag ba nga xam ne ñi gëm nañu leen ndaxuñu leen. su ko defee bu ëllëgee nga wax ñoom mas naa waxtaan ak président Abdou Diouf. Mhm. man ak man président dama jaaxle yéen a ñu mag. mais tubaab bi bi ñu fi nekkee ñaari gouverneur wala ñetti gouverneur yu fi nekkoon. Mhm. ñeenti commandant de sécurité dëkk bi dal. Mhm. mu ne ma lu tàng yow loo yaakaar ne ma ko ma ne ko li tax loolu amoon. mooy tubaab bi dañuy wax kilifa yi. yow dégg nga ba taay ñu ne maam Sëriñ Ababacar xale Sëriñ Ababacar Si gis naa gouverneur. ñu ne Ibrahima Diop sëriñ Ndakaaru gis naa gouverneur. ñu ne sëriñ Fallou wax na ak Senghor. sëriñ Moustapha yàlla yaay dool leeram ba mu buggee defar jumaa ji fii la jaar. Mhm. fii la naxanteeg tubaab yi ba jël suñ maam sëriñ Touba njaareem yóbbu ko yóbbu ko tubaa denc ko fa. Mhm. waaye yooyu moo tax réew mi meloon ni mu mel ba egg si fii. dëgg la kon émission yi foog ñu delluwaat di wax nit ñi ñi nga xam ne dañu mel ni alaay maam euh, Pape Malick nii fi jógee. Mhm. ni ñi nga xam ne moom lañu daan wax ci dal te nag xeebu doon benn benn benn benn kurél dëgg ndax ni mu daan dem ci kuréel diine yi. Mm. lay dem ci mouvement associatif yi. Mm-hmm. lu ci mel ni EMAD fii ci Dakar bu Abdou Khader Gaye mm-hmm. lu ñu xewle loo xam ne day dajale xale Ndakaaru yi. nekk ci sensibilisation. Mm-hmm. jàppale nit ñi danaan gars yi téye leen bu mu dëgër parce que ñi ngeen di pour xale yi bañ a rëcc. dëgg <laughs> pare nag ñeme ñi fi ñeme ñeme ñi fi yàlla daay ci ci ci nguur loolu tam dafay jàpp ci magam la ko jëlee sëriñ suñu bàyyi bi sëriñ Cheikh. la <laughs> jërëjëf. moo tax daal man li nga xam ne daal El Hadj Assane. Mhm. ñun ñëpp ci loolu la war a taxaw. dëgg la. dafay jafe nag parce que li may bëggoo wax général de mhm. moo ko wax ci mémoire yi dafa ne boo demee ba réew jaxasoo ba ku nekk demee sa xel dalal déglu ndax bu ëndigee am fooy teg tegtal nit ñi. Mhm. gis nga fi yi fi dajale yëpp di am. ci métit. ñu ñi di fi jógee. Mm-hmm. xanaa bu dul sax dara. sa digganteeg sa borom. Mm-hmm. nga ne ñi fi jóge am te mu bett ñu. Mm-hmm. parce que ñoom ñoo ko fiy jógee ci mbett la ñu ñu fiy jógee. dëgg la de. Tamsir Sakho barke dem ci mbetteel. dëgg la dëgg la. moom mi ci mbetteel. kon nag kenn ku nekk war nga bàyyi sa xel ne li ngay wax suba ñu koy nettali. wala nga koy jëf ñu koy nettali boo ko deful woon war ngaa tàmbali léegi di ko sàmm. dëgg la. ngir réew mi ngir nit ñi nekk ci dal. Mhm. am na solo man daal alaaji maa ngi leen di gërëm bu baax seen taxawaay nii jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax. di ñaan suñu borom bi ci màgg yoon bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. góor gi fi mu yéegal ko ci àjjana yi gën a koye. amiin amiin yàlla fekk fa ay wóor jëm ak ay te suñu borom bi may ñu ñun yàgg ci ko suuf di koy ñaanal. amiin amiin Diop. tey yàlla jox ñoo koo xam ne ci biir kër gi. Mhm. ci wéttali xalifa général Serigne Mbaye Sy Mansour. dana nekk wéttalam nekk cëstaayam. incha allah ñekk tànkam ak loxoom ak bëtam ak ay noppam ci lépp sedd rek ci diggante euh, tarixa yi fi nekk mm-hmm. ak diggante nit ñi ak këru diine yi jërëjëf jërëjëf maa ngi koy jaale président de la république tamit Macky mm-hmm. ndax xam naa ne moom ci boppam mm-hmm. fa mu toog am na lu ko metti ndax bu la yàlla dénkee réew ñi nga xam ne da nga da ngay war a waxtaan ak ñoom wala ngay waxtaan ak ñoom lu mel nii di ci am. Mhm.